l'ensemble coalition Beno Bokk Yakar. di nuyu aussi sama camarade de parti nga une alliance pour la république di nuyu le secrétaire général du parti monsieur Macky Sall le président de la république du Sénégal ce alliance pour la république la ñu nekk di militer à Thiès semaine passée euh, Defna responsable du bari yu nekk parti bi amoon na les anciens yi fi annoncé woon grève de la faim euh, bi ma ci waxee kenn ku ci nekk lim ma wax pour ne li la ko management bu baaxul la woon ma ne leen dañu jógee ci élection présidentielle département de Thiès la ñu bokk am nañ fi résultat yoo xamante ni ni président de la république Macky Sall félicité nañu au niveau du secteur national exécutif du parti mais nag fi ñu toll nii il faut ngeen suivre logique bu président de la république président jóge nañ ci élection yi mu teg gouvernement ki ñu doon wax mooy coordonnateur départemental bu alliance pour la république monsieur Augustin Tine l'ex ministre des forces armées euh, donc président génne ko ci gouvernement bi indi ko ci cabinet loolu dafa am jàngat buñ ci war a def euh, ñaawluwuñu sax li mu def mais doxalinu politique Augustin ci ni koy doxalee fii ci Thiès euh, loo xam ne la responsable yi nañu ko ma ne leen du ngeen ko naxarlu parce que li doxale doxalee ni muy doxalee ni non la mën doxale parce que biñu ñu ci élection yi ba léegi deful sax évaluation xamuñu lu tax ñu perte xamuñu lu tax ñu perte yenn commune si opposition réunir dañu perte commune yu bari ci monde rural bi mu nekk ay jàngat yu am solo je pense que ne kenn moo def jàngat bi muy président de la République Macky Sall jëlee ko ci gouvernement bi indi ko ci cabinet jël dame de ministre porte-parole du gouvernement madame day Tické Ndiaye Diop nommé ko muy cëru waa Thiès nekk responsable ci parti bi euh, bi ko nommé ñu gis ni def na ay jéego yoo xam ni suñ ko amoon depuis 2012 suñu parti du toll fii parce que def na jéego yoo xam ne mi ngi fédéré parti bi te loolu lu am solo la après ñu gis ni Augustin day commencé di def yoo xam ni euh, ci ay jaale la koy jaarale c'est-à-dire que day def day ay déplacement yoo xam ni bu jógee Dakar bu ñëwee Thiès euh, dëkk moo ko fii indi ñu xool ko 1 et 2 et 3 mi ngi koy def mais amul benn temps pour wax ak benn responsable donc te bu ñëwee ci dëj bi day wax ni dafa ñëw indi jaxalu président de la République te man gëwma loolu ma sama ay camarade ñu bari puisque le président de la République su dee jaale koo xam du responsable APR ku garab daanu ci kawam muy lu metti le président bu yebal seen délégation autorité administrative ñoo ko war a gunge ñu xam ne président moo yabal délégation doxalin boobu d'accorduñu ci ànduñu ci ñu xool ba xam ni dafa am ay responsable yu muy couvrir pour au moins ñu mën a gis nit ñi à Thiès mu ne dañ ko jaarale ci ay dëj bu dul dëj amatul lu ñu war a dafi Thiès te gëm-gëm boobu président la gëmu ko Macky Sall dem na fi ay sorti France dem ci ay dëkk wax leen ni nañu gën a taxawal parti bi nañu gën a jàpp parti bi nañu gën a téye parti bi mais ñoom dafa mel ni dégguñu kàllaama boobu président la République wax parti bi dañ ko war a dëggal à Thiès may woo sama camarade yi comme day diggee mi ngi ci yoon boobu xam na li ko président dénk ñu jël na ay responsabilité am di ko doxal su dikkee Thiès woo ñëpp nañu suivre président daa teg benn lecture nekkul jamono muy communiquer day teg lecture jeu dama bëgg camarade parti yi nekk alliance pour la république te bëgg Macky nañu suivre parce que président la bi teg na ko fi te loolu tegu ko fi rek pour mu ñuy xool te moom mi ngi ci jeu bu ñu dugg ci ay damaa yàgg ci parti bi yooyu Macky Sall tere nañu ko terewaat ñu ko ku la tardeel sept ans ñu jox la ministère des forces armées mosoo jël benn chargé de mission mosoo jël kenn ci sa cabinet ci dëkk bi kon war a amatoo lan nga war a wax population thiessois yi nga xamante ne ñooy jàppale président bi te jàmbaar lañu xeex nañu élection yi ba li ñu ci def ñëpp gis ko donc dañ leen ci sant leen gërëm mais taxawaayu Augustin sama camarade de parti vraiment ci wàllum politique jamono ji rafetluwuma ko te na arrêté ses déplacements au nom du président de la parce que loolu nekkul li nga xamante ni moo am permanence départementale bi ñu ñëwee ci élection yi ba léegi tijjiwul ay buntam li wax li tax dafa mel dañu bëgg a wax Cees waaye parti bi dafa fay te parti bi tey la war a gën a taxaw dañu war a suivre gis nañ fi ñu jógee ci parti bi dem ci ay marche aar yu ñu bokk yëpp ay taxawaay yoo xam ne la yu rafetul la te ñàkk management bu baax moo ko indi ci parti bi te loolu dama ko ñaawlu